mo ñu ngi sante yalla sante bu amut apa mu doy wa di julli ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam ak wa kirma sahaba mi ak kep ko mi ngi tepp sunna mi ba ilaa yawmal di ñaan yalla ñu la boole si ñooñu yalla ñi ñu xëy jaama ine ko fanaanoo ko yalla mi jaamal yàlla defal jaama yokk ñu sutura yokk ñu kattan yokk ñu wer ñi febar nek ci kër gi nek ci lopitaan bi wa fi way nek ni jaama yalla mi saafara yàlla ñoo la boole may afiya julli di jitu allah yalla yaatal sen bamel le seen bamel yalla def sen bamel mu nek rawdatu min riyaadil janna ndax njabootu yalla sabare aar لا لحل فيها يقول إكتوليسيون ساعة مستقيم مجلن فتنة مصيبة بلا شيطان ورسقلين حمام ورسقلين لغي ورسقلين أندو ربا جيغني يالا ساملين يالا بولين هي ولي آدنا هي ولي آه- الله اللاهرة مجلن سفرم بك جنو يوافي سداري محمد صلى الله عليه وسلم قام من يوم يواتاني موم إيه، سيويران بيمنا كاني ميويري إيه، إيه، ربيع أول nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam si la gane si àdduna waaye li gën a am solo yëpp ndik yonent bi sallam jàngaluñu leneen lu dul wala bàyyi ñu dara lu dul alquran ak sunna te loolu suñ ko toppee rek ñu ngi mel ni ñu ngi toppa si njàngaleem sallallahu alayhi wa waaye bés biñ ko bàyyee rek ah boobaa nag nañ bokk si ñi nga xam ne ay mubtadi un maanaam ñi nga xam ne ñu ngee doxal lii bidaa te bidaa comme ni ko yéen sallallahu alayhi wa sallam mu ne kullu bidaatin dalaala wa kullu dalaala fi naar bidaa boo gis rek dafaa si réer te réer boo gis rek mu ngi yóbbu boromam si safara bon mbokk jullit bokk na si jikko yi rafet yonent bi alayhi salaatu salaam di abu jahal bi nga xam ne moo ko doon fexeel pour lan yonent bi salaam ba bam sante gars yi ñu gas ay pax ay kamba pour su ñëwee rek ñu dal di ko puus wala si daanoo rek di ko suul moom mu feebar feebar lu feebarlu yonent bi salaam bi mu déggee ne dafa feebar mu jóg di ko seeti waaye même ne ba jub fi nga xam ne fa lañ gas pax yooyu jibril alayhi salaam ñëw xamal ko ne ah deelul waaw bul duga boo boo demee fii si kiram bi balaa ngay duga di nga daanu si pax yooyu te boobaa nag gaa yi nañ la suul foofu yonent bi salaa sallam deelu ba mu ñëwee jib kër gi rek dal olbatiku olbateku dal di deelu kiram kenn si jaami abu jahal yi daawud ne ko yaa aba ah, muhammad nga ne di deelu waaw mu ne ko muhammad di deelu moom abu jahal nag xam na ne ah mu nekk ni mu si lalam bi ki doon wax ne dafa feebar dafa topp si lalam bi dal di daw si gannaaw yonent bi alayhi salaatu di ko ne yaqul lahu yaa muhammad li ma rajata e yow muhammad lu da deelu lu da ngay deelu moom fàtte na mu ngi santane won pour ñu gas ay pax yoyu wa ndeysaan ba mo nekk di daw ci gannaaw yonent bi alayhi salaatu mu dal di daanu ci biir pax yoyu pax bu nga ñu ko gasoon xamoon nañ naka la pax bi xote abu jahal bam roté sibir biir pax yoyu jaama mi def nañ lu nekk pour génne ko si pax yoyu mënuñ ko génnee yoral nañ ko buum pour mu si buum bi mënut a jot buum bi subhanallah loolu mu nekkoon bugal bu rëy boo xam ne yàlla mu ko doon won boppam foofu amul lu gaa yi defut pour war koo génne mën a génne si pax pax boobu mënuñ koo génne allahu akbar gaa yi dañu commencé mu ne leen imdu ila muhammad wa bi bihi moom abu jahal dal di wax gaa yi mu ne eh, dem leen si Muhammad oyal leen ma ko sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen fii kenn kenn kenn mënuma génne fii ku dul moom ah xoolal lam doon gasal yonent bi sallallahu alayhi bam sa ne para duga def nañ lu nekk pexe bu nekk def nañ pour génne ko munta génna mu dal di wax gaa yi mu ne dem leen nga oyal ma Muhammad sallallahu alayhi sallam moom rek moom mun a génne fii yonent bi alayhi salaatu ak jikkoom bu rafet boobu mu dal di ñëw mu ne ko salaa salaam ne ko ndax su ma la génnee si biir teen bi wala si biir pax bii ndax dinga nga gëm yàlla ak yonenteem bi mu ne ko waaw caalit na mu ne ko waaw yonent bi alayhi salaam wasalaam bokk na si karaama yi ko yàlla defal loxoom bi la yoor rek téye ko melni kuy gene lire bu ndaw ndaw ndaw xali bu ndaw ci biir pa te ko xamene gaay yoran lañ ko ay boom def nañ lu nekk pour pour gene ko ci pa yoy mënuñ ko gene ci pa bi waaye salaa salaam si ci liko yalla defal loxoom bi la yor rek dal di tiye ko gene ko gene abou Jahal ci biir pa bobu bam gene mu ne ko ah li de kawteef la wala kéemtaan la bu yàlla subhanahu wa taala defal bi sallallahu alayhi wa sallam moom Abu Jahl mooy wolu de wa lizalika qaala nabi sallallahu man xafara xufaran li axiihi muslim waqaa fiihi loolu mooy ne keene néeg la boroma cay fanaan moom Abu Jahl lam eene woon yonent salaam moom moo ci mujjee daanu bi nga xam ne su ko sallallahu alayhi wa ni kon fala moo des fala moo waaye salaa salaam gis ne moom raufur yàlla subhana wa taala yooni ñeel doomi adama yëpp bon kooku du toroxal nit moom salaa salaam du fay ak nit moom yërmande rek la mooy dawal si eh, eh, eh, nitam yi wota nag moom salaa salaam dal di bu ne mu ne képp koo xam ne gasal nga sa mbokki doomi adama wala jullit pa mu ne yaa fay daanu waaw yaa fay bon mbokki jullit yi ñu jànge si ne doomi aadama waxtu bu nekk rek li nga bëggal sa bopp bëggal sa mbokki jullit bëggal ko sa mbokki doomi adama lu tax yonent bi sallam mu ne laa yuminu ahadukum xataa yuhiba li axihi maa yuhibu li nafsi waaye xoolal jamono bu nekk ni tey rawatina nag li gis si social media bi social media bi ku nekkaa ngi try pour naka nga yaaxee nit ku tuumalante bari na saaga yi bari na danga foog ne sax duñ ay jullit ay laameñ yoo xam waroon naa tooy si zikri tudda yàlla jàng alxuraan def istixfaar waaye laameñ yi ay wax yu ñaaw rek a siy génn xam ne diggante ay doomi aadama diggante jullit ak jullit ku nekk a ngi ene sa morom lu ñaaw ku nekk a ngi ene sa morom du bon di xaawiwante ay sutura yoo xam ne ah waaye xool leen sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy suñu royuwaay yàlla ne walakad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana moo suñu mooy sallallahu alayhi wa moom moom mi nga xam ne xoolal jaar-jaaram rek waaye yëpp xakañ muñ ak rafetal rek bon su fekkee ñu ngi oote ne ñun dañ si ummaam bi si xeetam bi bon dañ war si moom bàyyi yaxante bi bàyyi ñu wante ay sutura ay wax yoo xam ne amul benn njëriñ mbokku julliti te nit dina wax benn wax yowmal qiyaama ñu jël baat boobu dugal ko si safara juróom ñaari safara mu nuur si biir safara pour génne benn baat boobu nga xam ne yàq na ko moo mbokki doomi aadamaam wala mbokki jullitam bon acca la ñu roy si salaa sallam nga xam ne